jërëjëf euh, tey bésu mbégte la tey euh, fête la parce que suñu sët suñu ay doom ak suñu ay jarbaat euh, ñoom ñoo def lu ko lu ko mérité ñoom ñëpp góorgóorlu ñu macha allah ci école ba am ay résultats yu yu yu yu yu yu neex xol ah ci doon def entrée en sixième admis nañu. COP et puis également ñi nga xam ngi doon def troisième am seen sen diplôme loolu yëpp dama japp né lu rafet la loolu lu neex waajur la té dama yaakar ni xalé yi il faut que ñu leen di soñu di leen di leen di leen di leen pousse pour ñu ñu jublu ci ci liggéey hein ah, défé na ni euh, faire en sorte que ñu am ay modèle ñu am ay exemple loolu lu baax la ah te fête bi ma def nak tay ji dama bëgg a sen euh, sen effort sen réussite sen euh, Pastef ci jang bi pour vraiment ñu mën ko continuer bé mu nek ndariñ ci ñom suba nek ndariñ ci réew mi nekk njariñ ci ñëpp loolu mo waral bésu tay bi lé waaw je disais que c'était une euh, occasion de magnifier l'excellence, de magnifier l'effort aussi. Euh, c'est des jeunes qui ont travaillé pendant toute une année et qui ont réussi à leur examen, que ce soit l'entrée en sixième ou le DFM. Et pour moi, je voulais saisir cette occasion pour leur dire que leur effort compte pour nous. On compte sur eux, on compte sur euh, les efforts qu'ils font à l'école pour euh, s'éduquer euh, et prendre un bon exemple. C'est pour cette raison donc que j'ai voulu les réunir aujourd'hui pour leur dire que ce qu'ils font nous importe on est très regardant et on est très content hein, de leur réussite au niveau de l'école. Et c'est en guise d'encouragement.